mais mënuñoo wax ba ba yeggal te waxuñu ci journée yi nga xamante ne mal nga ko euh, parce que boo ñëwee ñaari champion yi nga xamante ne ñoo gën a tëgg Gàmbi mosuñoo daje nga boole leen dajale leen loolu lan la. waaw loolu lan la mooy jili comme li may wax rek sama sama sama sama ndorteeru wax diggante Gàmbi Sénégal benn lañ làmb ni ma doxee Sénégal la war a doxee Gàmbi. Hmm. xam na tey ñoom ñu fa nekk ñu tëggee làmb ñun tey nu ñu jaxasoog presse bi fii te ñëpp xam nañ ne làmb presse ci am solo. suñu làmb fu ñu mën a yóbbu niveau bi ak ñoom. mun na utee. yaa ngi dégg boo xoolee gis nga sunu combat bi ñu fa tëggoon nu mu meloon bàyyi ma njoon xoyantaan adduna bi yëpp doon ko xaar. Gambien yëpp ñëw uy suñu làmb ji am na mu demee ñu aj fa baay ma njoon. mu am benn combat boo xam ne Gambien yi lu mat juróom-ñaari at sept ñu ngi ko bëgg mënul sotti. ñun nag ñu leen comme ñun indi nañ fa événement gis ñoom nuñ ñu taxawoo ci événement bi ak nuñ ñëwee ci événement bi événement bi am nu mu demee ñoom lu ñu bëgg ñun dinañ leen ci fekk si seen combat boobu dinañ ko jël taxawal ko def fayee leen ko bor. mu métti loolu waaye ñu jëngu taxawal combat bi muy diggante Leket ak France. Boy Balla building boole fa combat yoo xam ne bu ci nekk bu la neexoon nga def ko grand combat boppam. Mm-hmm. mais léegi ñun au lieu que ñuy tas combat yi dañ koy jël def ko benn jour am benn challenge bu ñu créé. opération close de stadion mooy stade bi comme par exemple quarante cinq mille places la. Mm-hmm. sport mosu ko fa feesal. Mm-hmm. bu ñu jëlee mbër yu mag yi fa nekk yëpp boole leen ci benn jour. wala mbër yi ñu jàpp ne ñoo fa ëpp coow boole leen ci benn jour. except loolu noonu ñu bëgg dinañ ko mën a def dinañ mun a feesal. stade bi opération close du stadion. Mm-hmm. mu nekk loo xam ne dina yóbbu làmb beneen niveau ndax ci ma Mandione xoyantaan dafa am benn jàngat bu ma def ci làmb boobu Gambie. boo xoolee ñu ñëwoon ci stade bi 60 pour cent yi ñëpp biir Gàmbi la ñu nekk suñu dem làmb. Mm-hmm. ñu ci bëri soo waxee làmb dalaan am ba passé duñ ko yëg. Mm-hmm. kon keroog boo doon xool ci stade bi ñu fa ñu fa bëri jour boobu mooy seen première fois ñu dugg làmb. Mm-hmm. te làmb nag mooy sport boo xam ne ji ko ci njëkk a yóbbu yaa ko tooñ. xoolal kuñ ne la moo gën a bañ làmb nga fexe ndax ko yóbbu ko stade bu samedi jotee wala dimanche moo lay woo ne la jili foo mu jiitu la mu jiitu la. kon e, e, espoir boo xam ne ñam xam la tudd ku ko ñam mm. du ko bàyyi. Mm-hmm. léegi nag lu mel noonu la ñu war a fexe tas ko ci dëkk bi gox bu nekk ñu jël fa mbër ba nit ñi mën a jël seen xel def ko ci lamb ji topp làmb ndax Gambie boo xoolee mbëri mag yi nekk senegal fii ku ci am combat bis ñaari bis na jógee Gambie ñëw. dañ bëgg làmb fi làmb Sénégal tolloon ay 2005 2006 fa la làmb Gambie toll làmb Gambie léegi signature bu la neexee da ngay def ticket entrée day fees tepp fii boo fi defoon léegi signature ay ticket entrée doo gis kenn. kon ñun ji foofu bu ñu amee tuuti rek jàppale rek làmb ji day day dem te boo xoolee xoolal combat xoyantaan Baye Mandione nu mu toll sécurité bi boo doon compter li fa nekk ci ay GMI matul 200 éléments. xam nga loolu bu loon Sénégal fii la waxuma la cent éléments deux mille jeunes yi di nga leen jël. ak ni làmb ji demee gisoo xeer gisoo dara. kon ñoom histoire bi amul violence xam nga kon jamono bii la gën a neex a defar. moo tax ñun tamit xam nga ñu def fa lu mel noonu pour bëgg a jëlee làmb ji fu mu nekkoon rek am feneen ko yóbbu feneen fuñ ko yóbbu di sàkku si ñëpp ñaan ñu ñaanal ñu ñu mun koo ñu mun ko def di nuyu Gambien yëpp. di nuyu ana ana ana ana ana ana ana Boy Faye. Euh, Boy Faye mu ngi fi. ana avance bi fu mu mujjee ak yow. waaw mu ngi ci moom maa ngi koy utal maa ngi koy utal adversaire am na koo xam ne quatre-vingt-dix pour cent maa moom jubóo nañ ci. Hmm. waaw ay réglage yu ndaw rek lañuy xaar. am na mbër bu ma jëli woon de. waaw waaw am na mbër bi nga jëli woon mbër boobu mbër mbër bi nga jëli woon wax nañ ñu ngi am am na daal koo xam ne quatre-vingt-dix pour cent jubóo nañ bee passé dañoo waxoon mu yàqu bii bàyyi ñu noppi rek. Hmm. waaw bañ signé ko. est-ce fi mu toll nii ci làmb combat booy fay yomb na parce que dafa mel ni tëdd ci sa avance ba pare nga koy wutal adversaire mënoo ko am te am na ci mbër yoo xam ne moom nee nañ jama euh, jamaïcain woowu ma mais su woon léegi ma lekk avance. waaw dëgg la xam nga làmb nag dafa am lu ci ne làmb par exemple ki ngay bëgg du la bëgg. loolu gis nga chaque jour damay dégg mbër taxaw dañ maa ragal dañ maa ñeme amul benn mbër bu bu taxaw Sénégal kenn ragal am na ñu la ragal waaye am na ñu la ñeme yow tamit am nga ñoo ñeme am nga ñoo ragal. Mm. léegi yow nag jili bu fekkee dañ lay moytu ngay moytuwaate <laughs> say say mbir du yomb de te loolu moo bëri ci làmb ji man li ma gëm mbër nga bëree mooy sa métier boo gisee combat jëlal ñi lay xañ avance naan la bul bëree kii yaa ko raw yaa ngi dégg te mënuñ laa jox dara mënuñ la utal combat ñu bëgguñ la duñ sa soppe mbër bëre mooy métier soo toogee deux ans trois ans bëree woo perte nga. Mm-hmm. ñeneen nay génn bàyyi la fi. waaw ndax gars yi fii nag ku nekk en activité la ñu xam duñ fi nekk supporter yi amuñ jotu sax nga toog fi quatre ans woo toog sa kër ñu naan diw diw de ki génn di bëre ji la ñuy topp kon mbër mu ci xam loolu bul sonn boo toogee bëriwoo boo gisee combat koo xam ne nii mën nga dem bëre ji demal nga bëre ji yaa opté pour nekk mbër boo opté pour nekk ministre kat naan man duma ma defar ban ay foto yi laay defal <laughs> yow da ngay tardé sa bopp rek. Mm-hmm. mbër nga fii gars yi kuñ na la ne yàgg moom rek yaakaar nañ ne am nañ duraane tolloo ngeen war ngeen a mën a bëree. Mm-hmm. nit nag buñ la ko joxee ñaara ci am boo ko mënee demal duma ko waaw waaye du ma sa morom du ma mu diw kii du doo moromam te bëreegu leen yooyu ay waxu caaxaan la làmb ji bu ñu bëggee mu defaru nañ ko xoolaat xool li koy yóbbu ñu yóbbu ko bàyyi kii du ma bëreeg moom kii du ma mam maa ko raw cinq combats la am six combats la am la football bi léeg-léeg nga gis Real Madrid di di di football ak club boo xam ne kenn xamu ko club bu ndaw ay deuxième division lañ nekk dañuy football ci sport làmb ji boobu ci génnee rek làmb ji dox am na solo Jamaïcain ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax président <laughs> maa lay nuyu <laughs> maa lay jaajëfal bu baax baax. sa professionnel des na mooy li ma la wax sànq rek. nan ngay defee émission nit di romb nga président maa ngi lay nuyu. Ah, président non man boo nuyul. yaa ngi te micro xam na ne yaa ngi def sa liggéey. bàyyil bay tëj nuyu ko. man la laa. xale nga nag dañ lay corriger. liggéey xale. wasaare xale ay xale. nga fi benn conférence de presse ah sol sapin xam nga jili vraiment. foo jaar nekk professionnel xool ni. ok waa bëgg dawaa bëgg. soo gis kurus gang ci loxoom mu ngi sellal di jàpp di julli ah di sol sol wu jot. li xam yaa ma ko jàngal. man man ñëpp xam nañu ne man du correct laay sol. ah. promoteur buy désiré. Jaway Kee maa lay jaajëfal bu baax kontaan la trop baa suma xarit la suma nit la chaque jour maa ngi moom ñooy lekk presque wala taabu bari eh, dañ koy toog di waxtaan ci koñ bi mais dañuy werante rek bala yow di jubóo. bëgg-bëgg ngay waxee moo tax maag yow sunu débat yëpp loolu la ta man moom xam nga rek. damay bëgg tout le temps bu ñuy wax ñuy wax ci ay fee yoo xam ne day am lu muy jëriñ askan wi. waaw di la ziar bu baax a baax di la nuyu di nuyu waa Gambie yëpp di waa Sénégal. Mm. di nuyu sama staff bu nekk foofu nga xam ne combat bi yaa gën a diire na boobu léegi ñu ngi ci di sonn ku ci mel ni gil si ñoom paate aus Aïcha staff jam production bu nekk foofu yëpp waa promoteur HC Son maa ngi leen di ziar bu baax Ousmane Diop nekk son président di ko nuyu di nuyu ñi fa nekk yëpp di ñëw fii tamit di nuyu président euh, euh, promoteurs yi Pape Abdou Fall di ko nuyu di nuyu ñoom Dieye promoteur yi nekk ci réew mi yëpp ñooñu di nuyu waa bi ñëpp képp koy promoteur ci réew mi maa ngi lay nuyu di nuyu njabootu làmb yëpp di nuyu sama papa sama xarit père ba comme ni ma ko waxee